sama yaram baa ngi kurkur yi. oh, oh lépp na yàlla lépp a dem. oh c'est dommage. Sénégal léegi kenn xamatul lu mu doon. kaayee fi des. foofu lañ nar a jëm. Davida comme fierté dem na. ñoom seen lépp dem na. Hmm. kaayee ba tey ci nouveau cas yi rek. te boo xëyee nga am cas. toujours problème rek mësta ñàkk. xaw ma lu fi ñàkk nag. fierté ak ñoom seen xam nga nag li tax ma indi ko. Mm-hmm. xam naa waa rési dinañ ma préparer soxna si nga xamante ni jamono jii may wax ak yow. Mhm. bokk naa ci ñu koy jàppale ci dossier boobu. mais damay alerter également yéen ñi yor seen i parking oto. Mhm. di def location yi. Mhm. ngeen def vigilance. te xam ni cas bi ki ko dund ñu ngi tudd Mame Seye elle de Kër Massar ma xam ko muy jigéen ju brave bu ñàkk ay waajuram mais mu nekk également jigéen joo xamante ni liggéey rek la xam ak daan dooleem. ñafe ba am otoom am benn sàmbaaboo yi bu mu bu am bu mu amoon ci moom confiance ndax léeg-léeg nit ki dina dem ba transformé wu jëmmam dootoo ko mën a considérer muy nit mais da nga koy naan sàmbaaboo yi mel ne un inconnu ci yow mu abusé wu ci confiance su bu jigéen bi ci wàllum oto pour un mois mu nekk un million ak lu teg femme bi jël oto bi jox ko ji waaye la ca doy waar waa ji nga xamante ni moo fay xaalis bi dafa am somb de desoon ci somb desoon ki nga xamante ni moom mooy rakk waa ji moo jëli joon oto bi ci kër femme bi ñu waxtaan nag muy location femme bi dem ba dara desul lu dul mu dem récupérer waat desutu xaalisam mu ñëw fekk keneen war otom mu ne ko waaw yow mii looy def ci oto bi mu ne ko dañ maa tayale oto bi delluwaay waa ji génn fii dem service de mines créer ay papiers ba noppi delluwaat femme bi dem plainte ko fa nga xamante ni mooy mooy sa sa sa bu bu ba demee foofu dañu ko ne oto bi da nga ko jaay femme bi na leen nan laa jaayee oh, loo xamante nii defuma ci acte de nan laay jaayee loo xamante ni defuma ci dara sama carte d'identité nan laay jaayee loo xamante ni awma kenn ko témoin waa ji dem falsifier keneen indi ko ngir mu wane ni ko ni man rek maa jaay oto bi waaye la dimbali femme bi la ko dimbali mooy raq waa ji di maanaam ji looy oto bi moo dem far ci ci femme bi ne ko mosu ko ko jaay man mii de maay raq diw waaye hmm. location lañ wax xanaa loolu leer na waaye fii may wax ak yow femme bi ñu ngi yéeg ak di ndax waa ji daa jël xaalis koromp fa mu njëkk dugal pelante ba muy benn ñaareel bi mu koy menacé naan ko loo bax ma ngeer foo ma woo ma wuyu du mujj fenn <laughs> bi nag daf ma kaa yéex wax ndax man maay problème problème sur problème je je prends le problème la solution la solution nag n'est rien absolument rien que de la faire venir ici même tey waroon naa ñëw amul temps bi mais nag mu accordel ñu mm-hmm. par téléphonique kon rési bu baaxee ngeen dugalal ñu Euh, ki nga xamante ni moo di maam say ah day da daa loolu danse na <laughs> mais nee problème sur problème dafay daa nga ne yaay problème. waaw problème bi. waaw yaay ci ki ki ciy taxaw. waaw maa ci maa ciy taxaw. su <laughs> dëgg kaa bi. waaw dégg naa ko. doy na waar. mais mais c'est important maa ngi xaar ba si ba si di déglu sax na si. ma ah! gën ci wax am naa ci lu bëri lu ma ci war a wax. Davida ah, lii Sénégal la xewee. parce que est dafa bëri ci réew mi. ah, ah. mais fu mu nekk nii dangay dimbali dangay ngay dimbali sax ñiy jël war a jël si oto yi actuellement di war ko luyee. kaa ah. bu rëy bii Sénégal fii la xewee. waaw Kër Massar gii. nee na mi nga xam wuy ko. alo oui soxna si. waaw nee bu dee yaa ngi dégg rek ñu bàyyi la ki nga xam ne jamono ji moo nar rek régler problème bi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maam say maa ngi lay nuyu. di am kontante bu baax ak ñi ñu accordé li nga xamante ni rek mooy xew-xew bi. ni ma ni ma ko waxee ci plateau bi xamal naa leen ni kii nga xamante ni rek moom moo di victime bi jigéen la boo xamante ni daan doole rek la xam. jigéen la boo xamante ni ku ñàkk ay waajur la. jigéen boo xamante ni boolewul liggéey ak fo fu ko fekk mi ngi nekk ca palaasam di liggéey jigéen boobu nag victime la tey ji ci maanaam escroquerie. xaw naa relaté tuuti fay yi ci waa ji nga xamante ni moom moo linjaan sooto bi ne da ko ko jaay te location ngeen sekkoon tungu ne nag du teew ñuy nataal donte daa gàtt waaye ñooy déglu seen nopp gàttul mam tey bisimilah. deux heures laay wàcc mu ne waa maa ngi ñëwaat jour bi mu demee jour boobu daa mu mujjee ba mu toog ba mu nee ko mu envoyé waat rakam sept cent mille ne ko pour un mois dix jours mu nekk un million deux cent mu nekk un mois dix jours ma ne ko léegi na ñoo ñu def contrat mu ne ma maa ngi ñëw boobu ba tey ñëwaatul ba un mois dix jours ma woo ko di ko laaj sama oto waa ji taxaw ne man dama koo jaay oto bi ma wax jëm ko wax jëm suñu waxee ko jaay oto bi léegi ma ne ko waa amul problème léegi ma oto ma xool ñu dem ba ci kër benn waaye mu tay la ko oto bi waa ji ne moom waa ji la koo tay la oto bi ma ne ko oto bi sama oto la mu ne ma def naa tay la oto bi bu fekkee da ngay jënd oto bi kaw man tamit ci laa mu ñibbisi ma mer jaaxle bay bëgg a politique di ko clamé ak ñoom pour ñu defal ko plainte plainte ba foofu def nga trois semaines yi may jàppante tey suba ginnaaw suba tey suba ginnaaw suba policier bi ne ko ne ma nga koy jaay oto bi parce que boo demee ba tribunal da ngay perte ginnaaw affaire yi jigéen laa ko ma dal ma ne ko waaw amul problème ba ci yàgg sama xel bi daal ne ah kii ñii di ma bëgg a def loolu dafa louche parce que man mënumaa luyee sama oto ñoom ñu jékki-jékki dama def ay oto par la force ma ne ko man jaay ma oto bi ma ñu gis ci daal laaj samay nit jaay sa oto parce que lii dafa louche yoon bu ko jaay sa oto dafa def sa oto booba topp di taabante fu ma xam maa dem jaaxle naa trop te wax di daa doy waar sax nga fa defee dafa na ko jaay oto yorul sama photocopie carte d'identité yow defalu ma ko acte de dara te en plus oto bi mu sëgg nii man dama ko ko jaay tiiteeku ma ko sama tur beneen turu paa la paa bi ma ko jaayee oto boobu turam la nekk tiiteeku ma dégg na moom dem na yóbbu service des mines ba génne carte grise bi ba yóbbu ko ci carte d'identité paa boobu paa boobu nag kenn bis bu ñuy taxaw tribunal moom dina ñëw laaj ko fan la carte d'identité bi ak nag ko jox kaar bi noonu la demee. Mm-hmm. doy na waar. di ko mastaw di ko mastaw di la mastaw bu baax a baax a baax soxna si euh, mais tamit euh, mbir mi doy na waar torop ndax euh, li nga xam ne sa alal la comme ni ko Davida waxee ngay jàmbaar di liggéeyal sa bopp ba yàlla dénk la dara boo sañoon da nga koy jëfandikoo mais nga dellu ñu lay lan ngay wax ñi nga xam ne say moroom lañ ñu nar a dund li nga xam ne comme li nga dund nii rek ban conseil nga leen di jox ah, surtout ñu liggéey bi. comme que daan nañu doole xet guddul. Mhm. lu ñu mën ci def nga xam baax li def di bind di signé. Mhm. parce que tey jii écriture ba yëpp ak si ñaar te tamit dañ bàyyi ñu bàyyi suñu xel yi ku ñëw def ko comme suñu bopp chaque jour loolu moo ñeent parce que suñu bopp man de conseil bi ma gën a jox ku mën a léegi dañuy liggéey bu location tamit nga liggéey parce que location bi kat bi risque lekk la dañ lay mën def sa àll tëdd maam bu ñu taxawee bu ñu taxawee ci ci par exemple waa ji yenn xeetu tra traga yu lay sànni mooy wàllu menace ak demal ak faalewu ma la du mujj fenn. waaw ah, léegi ah, lekk sa alal ba pare di la menace. Mhm. man de ah, dama. madame man dama am question euh, ñaari question après euh, balaa may ñëw ci deuxième bi mhm. euh, premièrement yow da ngay louer ay oto waaw ok moom mu ñëw pour def location de véhicule pour ñaata fan au moins dix jours au alors def nga defoon nga contrat de location de véhicule jour bi ñu ñëwee waaw ah. pour louer ba indil ma cinq cent mille avant waaw ah. dama ne cinq cent mille waaw mu ne ma xaaral ma ñëw pour tëjee ko <laughs> ñëw ndax contrat yi man boobu ñu ngi sama kër te foofu. Hmm. mu ne ma ñu ñëw jour bu mu demee boobu laa ko mujjee gis. Euh, euh, cinq cent mille en guise d'avance léegi yow hmm. defal nga ko décharge parce que dans la décharge si décharge bi dafa war a dañuy war a mentionner décharge euh, joxe nga cinq cent mille en guise d'avance ci benn somme boo xamante ni lii moo tax mu jóg. man def naa sama desal. waaw am permet pour ma remplir ko. ma ne ko prix sama place dañ dem sama kër papaay ñu sama ok kon yow euh, daf la jox mais amoo benn pièce boo mën a téye euh, boo xamante ni mën nga tax nga identifier ko non c'est une grosse erreur madame léegi euh, def nga plainte pour identifier kan pour xam waa ji xam na waa ji maanaam xam ci vrai vie waa ji ah yow da nga ko xam nga nga xam ok léegi après moo tax nga ne jarul ngay def formalité quoi voilà ok léegi moom bon waa ok loolu moom kii la escroquerie la mhm. léegi euh, da porte nga plainte léegi plainte bi nu fu mu toll lant bi kay man maa ngi nii sëpp ci loxoy yàlla parce que dañ may jaabante loo rek. non attends fan nga porte plainte police gendarmerie wala tribunal. police wu tënkee. léegi police boo demee ni ñu lay wax. tey suba xaaral wax njëkk waxtaan déggoo jaay ko oto bi. parce que boo ko jaayee oto bi da dem ba tur ah. parce que même police sax warul wax euh, jaayal oto bi police moom dañ lay déglu rek wala ñu yebal la fenn léegi yow. demal dañ lay wax demal ñu renvoyer sa audition wala dañ la naan demal bàyyil demal jaay oto bi rek. dañuy toog ñu déglu ma déglu sama témoin mooy déglu ko moom déglu témoin ba pare ba bañ li ñu wax. waaw. waa ji moom da day mel ni yow ndax boo demee ba léegi léegi yow yow yow yoon may na yoon daf ne hmm. bu la bu la buñ la tooñee nga mën nga porter plainte ci police wala ci gendarmerie waaye bu la neexee demal ci bureau procureur nga teg fa sa plainte léegi yow looy def hmm. fo ban département nga nekk. Kër Massar. demal ci Pikine. ah tribunal bu Pikine nga porte plainte nga bind nga bindi ko procureur de la république nga déposé ko nga déposé ko porte plainte contre ki nga xamante ne nga wax ne moo la tooñ su boobaa plainte procureur moom dina sant policier yooyu ñu jàppal ko waa jooju. waaw baax xam naa ne. beneen bi ci di ngeen bi mu bëgg témoin ne affaire yi am na témoin bind ñetti témoin waaw léegi ñu ne ko léegi ñan la ci woo mu ne kenn ki rek woo. mu woo benn waay waay bi ñëw téema yow li waay ji wax ak moom li ñu wax benn bokk ci. léegi yow léegi yow yow léegi yow par exemple bu waa ji ñëwee ne yow da lay da lay koy loué oto un mois est-ce que témoin boobu noonu dafa taxawoon foofu. fekkewul ah ku fekkee mënu nekk témoin foofu bu demee jàpp ko di. te moom li ci gën a neex. témoin mooy ku fekkee. femme bi fekkee ko xam. femme bi gën a neex ci côté mooy rakk waa ji loué oto bi. moom ci femme bi la témoin. ci femme bi la témoin. waaw amul amul qualité de bi dañ ko ko luye. ndax moom moo jël oto bi yóbbul ko mag ja. c'est grave kon moo tax ma ne ko yow na sa xel daal ci wàll wi. li ngay def rek lenn la mooy ni ko cuun waxee nga jéggi fi police gële dem dem dem tribunalu Pikine nga adressé ko directement procureur de la République. mooy te bu soobee yàlla incha allah. te ndam nga ciy am bu soobee yàlla. Euh, di nga ko jël ci suuf. Fatia am daa am non baax na après ñu ñëw ci commentaire waaw kon kon kon maam say ñu ngi lay jaajëfal. waaw di lay kontaanee ak di lay wax naan la lekkal ba suur naanal zéro stress dégg nga. Mhm. <laughs> waaw jërëjëf. <laughs> jërëjëf Rési ndeysaan sama xol sedd dégg naa maam Sey muy reetaan loolu rek dèjà mbégte la si man mhm. waaye incha allah xam naa ni cun du ñàkk nga jël ko ci suuf nga gën koo expliquer mhm. li nga xam ne moom la war a def ak mhm. procédure yi ba mu mën a jotaat ci alalam waaye muy mbir moo xam ne doy na waar trop facca Euh, doy na waa trop ren laa lii koy yow dafa ëpp sax tool instant bi nii. Mhm. kenn xamatul lu mu doon. Mhm. ndax euh, Sénégal dañoo jël dóor. def ko mhm. muy challenge maanaam yi bu dul ci sëriñ yi rek mu ngi ci xale yi nga xamante ne nii au lieu que ñu dem daani seen doole. ñu ngi xool suba ba ngoon jot ñi nga xam ne dañuy yeewu fajar di guddee tëdd. lu ñu def ba roppat li nga xamante ne nii moom la ñu yor. Euh, sàcc lañ leen mën a tuddee bien vrai que defuñ ni comme sàcc yi di def mais lii sàcc la. te damay laajte man ani abu mbaamu jàmbur ana lan la ci dagg nopp yi di wuuti. Ah, yaakaar naa ne boo àbbee yëfu jàmbur war nga koo mën a delloo ci même bu dee da bëgg mu jaay la ko boo demee nga waxtaan ak moom ne ko lii laa bëgg ak lii laa bëgg mais jaay doole bi dafa bari torop torop torop te dafa mel ni dafa nar a dëggal li ñuy wax démocratie nga xam ne yematul ci état bi doomu ak ay opposants mais mm. ci biir réew mi fépp foo dem loolu lañ lay def dañ lay jaay doole jël sa alal. jaay la doole def la ko sudul noonu loo xamante ne nii du yoon wala gënalu la ba tax na moom daal ñu koy conseillé comme li ko Choune wax na dem fi nga xamante ne nii fala fala fala fala mbaxana doonee benn fa lañ war a lijjantee lépp mu déposé fa plainte wam euh, ñu lijjanti ko mu leer et tamit euh, di wax ni ko <coughs> policier yooyu noonu nga xam ne daf fay dem muy police bu tëngee ñu koy wax naan ko jaayal oto bi euh, ñoom ana lan lan lan lan lan moo war a tax ñu koy wax jaayal oto bi wala dañoo nekkatul di def li nga xamante ne nii mooy seen liggéey bu fekkee ni liggéeyu police mooy lijjanti ñaar ñaar nit yu am problème lijjanti xool fan la fan la dëgg féetee ak kan moo tooñ mais dem ba dinaa nit ki surtout nit koo xamante ne nii yow wóor na la ne dañ ko tooñ parce que kii boo déggee ni muy waxee dalay dalay wóor dañ koo tooñ mm-hmm. ndax luyee oto ba mujjee ci jël oto jàmbur ne dam daf ma koo jaay dem police nga naan ko du mujj fenn mm-hmm. euh, loolu war nañ ko xoolaat bu baax a baax ndax yéeme na torop voilà Thion man li ma jaaxal mooy policier yi nga xam ne dañ koy naan ah bu yaboo nga jënd sa oto loolu lay solution bi est-ce que loolu mooy wareefu tamit ñi nga xam ne mooy euh, ci ñi ñoom lañ